non mosuma koo dégg de franchement maa ngi koy soog a dégg waaw Sénégal kay man li fi am daa mel ni daa mujjee bari sax de ndax chaque jour ak li ngay dégg barki démb jamaa jamaa maa ngi koy soog a dégg franchement. ba parce que man jamaa nag moom mosuma ko euh, ay Guinée laa ko doon dégg ay yenn dëkk yi mais Sénégal ak jamaa mosuma koo dégg boo ma nee or ma ne la waaw ma nga Sabodala te sax amaanaam am na feneen fu mu am furul Sabodala parce que Sénégal moom mafia bi daf fee bari gouvernement mafia lañ yore ko moom dañ ko wax te franchement gars yi moom lu leen neex la ñuy teg waaw li fi am li fi am sa ëpp war na ëpp jama man bu amoon lu supérieur a jama lan moo supérieur a jama wala jamaa fa la kii bi tool foo la richesse bi toll bu amoon lu supérieur a jama dama naan am na ci réew mi mais gars yi dañ koo magum toog ci no loolu du ma jaaxal parce que pétrole gii nii sax ni mu demee la dane fàng rek moo tax ñu mën cee jot mais bu newuloon fàng pétrole bi gars yi te pétrole bi sax bi ko gars yi commencé dégg ni nii nii sax muy kii nii sax dafa ki mais pétrole bi maanaam yàgg naa feeñ gars yi yàgg nañ koo exploité. waa kay moo tax pétrole bi siiw mais jamaa gii nii sax damay ragal ne maanaam am na feneen fu am jamaa fu gars di ko exporté te yëguñu ko parce que réew mi maanaam li ma la wax rek moo bari mafia gouvernement mafia lañ yore non kenn du xam ne Sénégal am na jamaa laay la kon duñ ko mus a yëg te man maanaam ki wax na jamaa bi feeñ na sax moom anamu ma parce que maa ngi dégg ne gars yi ne nañ ko jàpp. ñu ngi ko téye mais pour lan pour lan ñu koy téye jamaa am na ci réew mi la ñu téye ko mais nu mu demee noonu ban réew lañ nekk kenn du wax. mbik li waxoon nañ jamaa bi dañ koy jël nguur bi sàcc ko ok lay def mbik maanaam si ñoom lay des. si kay ah mafia la kay mafia bi ñoo koy jël séddoo ñi ñuy toog di xoole. 2013 ba léegi ñoo ngi koy doog a yëg akon gars yi dañuy nax rek li mooy moom réew moom baaxul ku nekk na nga xam foo jëm rek. dëgg yàlla réew moom dañ ko war a jaare ku nekk jël sa wàll ndax réew mi baaxul jamono am fi mënu fexe ba yëg ko dem ba ñu juddoo ba léegi 2013 ba léegi encore ñu koy doo a yëg tey waaw ñoom seen biir la rek ndax xam erreur moom xam nga day senn seen biir moom seen biir la rek affaire yi xam naa kenn ëppale rek waaw xam nga rek moom séddoo moom lu ñëpp bokk moom bu ci kenn ëppalee moom rek coow coowam loolu noonu la fa demee ma xamal leen maanaam ñoom seen biir bu doon exemple trois kilos la danaan danaan un kilo fi nekk deux kilos yi ñoom ñooy seen biir la waaw mais ñoom yàgg nañ ñoo nax nag du tey nag yàgg nañ ñoo nax de ñoo muñ ba sonn noo mënul dul la nag ah sénégalais xam nañ mais sénégalais tamit mooy loolu ñuy ay xam nga affaire yi moom bal tang si la rek mooy loolu da ngay dóor mu delluwaat si ñoom boo leen dóoree si ñoo si la ñëwaat amuñu plan amuñu dara boo waxee ñu jàpp teg doo ci a wax tamit yow boo xëyee amoo loo ndekkee amoo loo reeree suñ la yóbbee fee sa yaay mooy sonn say waa kër moo tax doon na ko sañ a wax mais loolu dafa war a dakk quoi dafa war a dakk affaire benn côté kese la nekkee non dañ ko war a def pàccoo bu ko defee ñu def ko grand cas ñëpp séddoo mais petit cas rek waaw benn cas xam ne ñoom seen camp boobu da lay far loolu dafa métti ba léegi mënuñoo fexe ba dund sax dund bu baax waaw mooy loolu. waaw ñu ngi koy dégg de ñu ngi koy dégg bu baax mais nag xam naa ne ñun dégg lan ci am parce que li fi jaar bari na te ñun. daanaka dégg la ci am ñun ñoo waroon bokk ci réew euh, réew yu gënoon a kawe parce que ñu am nañ lépp lépp lu ñuy wax luy jëriñ réew ñun am nañ ko way lépp a ngi fi am nañ géej am nañ géej am pétrole am gaz ah, am am or am naaj bi lépp daal am suuf boole ci kon ñun lu ñuy ma lu ñu leen a manqué mooy suñu njiit yi ñoo xaw a bay côté néegu doole yi mm-hmm. waaw te dañ leen a war a jàppale ñu leen war a jàppale bu baax affaire benn côté waaw noonu loolu loolu la demee nag parce que affaire dafa mel dafa féer côté boor ñu dañuy xëy di am seen am am di gën a yokk ñu di xëy di gën a ndóol di gën seen dool a yokk waaw parce que waykat boo xoon na ko ne na woon borom doole yaa ngi dimbalante ñun néegu doole fu ñu jëm <laughs> loolu moo fi nekk loolu moo fi nekk borom doole daal ñooy dimbalante seen biir mais ñun néegu doole daal dañuy xëy di daw suba ba ngoon rek billaay mais nag sant yàlla bu baax bi ñu yàlla joxe ay ay kilifa dina kilifa yu baax waaw parce que am na réew yoo xam ni yu bari bu fa yi day jur day jur réew mi tàkk ak yooyu te yàlla dogal na daal maanaam macha allah am nañ ay kilifa daal 2013 ba léegi loolu doy na waar di ah 2013 ñaar at 9 ans xam nga ah doy na waar moo tax mooy li ma la njëkk wax léegi rek daanaka ñun dañ koy dégg rek kon waaw mais daal yàlla na yàlla jox ay njiitu jub daal yàlla jox ay njiitu jub daal waaw di ñaanal suñu président nag parce que <laughs> moom la fi yàlla teg tawet jàmbaar la liggéeyam ci réew mi kenn du ko sikk sàkk waaw mais nag ñu góor daal gën a bay ko te gars yi daal waaw néew gi doole yi daal waaw loolu lañ bëgg mais nag kenn ku ne am nga sa sa carte d'identité sa électeur ñëpp ñu ñi ñun ñuy tànn ñoon xool ki nga xam si nii moo nuy mën a jariñ moo moo am na moo am yaakaar ne moom moom moom mën nañu jariñ ñu ñu ñu tab tabu ko loolu mooy wax ji de waaw waaw waaw ku sell ki waaw mën na nekk ku sell ki mën na nekk si kaneen waaye waaye waaw ñun ñu sell ñi waaw mën na nekk waaw loolu lan bëgg waaw ñun daal njiit yu tegu ci tàngal moo nu may moo nu xaw a manqué parce que su suñu président bu jibee sax ñu nekk si ginnaawam da ngay waaru daal kenn xamul mu demee daal waaw ñoo ngi ñaan daal doy na yàlla jox ay njiit baax daal njiit yu baax daal yu tegu ci tàngal daal loolu lan bëgg daal waaw ñu mën espa waa waa ñëpp da si gis seen bopp parce que réew mi daal toll na foo xam si nii Eh, li fi am nii moom ñëpp ci war a seen bopp waaw ku judd tay ku judd bërki dem ñëpp daal ñoo ci war a mën a bopp wax dëgg yàlla